mbokk yi compagnie Sénégal c 3 moo ñëwaat ak yéen ci jongante bi mu baaxoo amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di ñeenteel bi édition ku ci bëgg a bokk da ngay bind lu tollu xët ci alxuraan bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci butiku c 3 bi la gën a jege ci Sénégal wala fépp foo xam ne raabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi ci Sénégal am na fa dépôt candidature yi di a jagleel ko région yi di maatam Tambacounda Ziguinchor Kolda Sédhiou ak Kédougou ngir gën a suqali mbind mi ci gox yooyu le ñett ñi jeetu ci concours national bi dinañu am neexal yu am solo yu ñu leen jagleel premier bi dina am 6 millions deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions kuréel bi saytu concours bi mu ngi fàttali candidat yépp ne ku ci nekk benn dépôt la war a def ak foo ko mën di defee ci biir réew mi kayit wi ngay déposé it yaa ko war a bindal sa bopp ku ci bëgg yeneen i leeral wooteel 76 751 43 42 wala wala 70 736 36 36. jëmm ji nga xam ne nag jëf ji maanaam moo ko jëf muy Alaaji Mbay Ture maanaam li arab yi wax fala xarwa an yaxsul fata xasa walidihi loolu am na ci nit ki du kiimaan mu jaar fi ay maamam ak i baayam di jaar mu ñàkk faa jaar mooy doon kiimaan waaye mu jaar fa du nekk kiimaan ndax ki nga xam ne mooy seen maam di sëriñ Mor Touré di maam yi sëriñ Abdou Latif Touré mi nga xam ne mooy sëriñam liggéey bu liggéey si kër sëriñ Issa boo xam ne ñëpp gis na ko gone gis na ko mag gis na ko ñëpp xam nañ ko ndax firnde ci loolu rek ku xool sëriñ Abdou Latif Touré rek jaar gi ci yoon ak jaar ci siratul mustaqim ak dëggu gi ak gëm gi sëñ sëñ sëñ Tuubaa Cheikh Isa dana la xamal ni kii signal la ci ñi ñi nga xam ne ñoo ko meññ ci ay maamam ak ci baayam loola moo law bi sëñ bi bëggee fii jumaa yi daa woote fekk lu bari waa dëkk bi sax mu mas nañ ko njëkk a jéem ba ne dañ koy bayal ab tool sëriñ bi xamal leen jumaa yi ab tool liggéeyu ko xaayal leen ba procès yi ma nekk wàññeeku ñu seet nu ñuy def ba taxawal ko ba nga xamee ne yàlla atte na sëriñ bi jubli ci ba woote woo si ab ture Touré woo Mbay Touré mii xam na ko ni ko damaa bëgg ñu am jumaa fii ci njenn te bëgg nga jàpp ci mbay ni ko defal nga plan mun ko daa defaral plan ba mu defaralee plan ba mbay ñëwee xool plan bi daf koo xamal ni ko sëñ bi su ma sañoon nga téye plan bi ma dem yi ba mu demee moo liggéey plan ñu egsi ni ko wàcce naa ko ñëpp yan naa ko menn man sëñ bi ni ko mbay jumaa yi na di mun ko menn man yan naa ko nañ ma ñaanal rek dërëmu kenn di mu ci la sëñ ba dajale woon sax da koo defaat addiyee delloo ko mel na moom mel na moom ba bis bi ñuy teel yi mu nekk mbégte moo xam ne képp ku lislaam ñor sëñ tubaa ñor la Cheikh Issa si ci sa biir ñor la wala nga bëgg lu baax wala ngay nitu diine boo ci duggee sa xol dana sedd da nga kontaan da nga am mbégte danga danga danga am yaakaar ci ni sëñ tubaa la ko waaye defal mu fay la ko ndax jumaa ji ca njëreem jiit njiit njiit lim ci doonoon noonu la ca ëppe woon jëf ñëpp nag ndax mas na maa dégg ci kilifa gu mag nee na daa am jamono boo xam ni xam na nit ñi niñ mën a yéjji nit am koo xam daa toog ba yàgg mu waaw waaw sëñ Issa jumaay liggéey jumaay njëriñ liggéeyu ko moom rek moom ñëpp ko ànd liggéey bu ñu ci ñëwee wax ko mu ne loolu mu wax dëgg la waaye nag li ci waa xabaan def ku ko ku ko ko xeddi woon ku ci ci ku ci nekk bu taw ñëwee di nga tooy bu tàngoor ñëwee di nga tàng kon nag képp koo xam ne si ab taalibe nga tay ameel nga Mbaye Touré njukkal ameel nga ko ak cant ameel nga ko ngërëm ameel nga kon maanaam ak ñaan ndax ab jullit si kontaane daa war a ñaan ndax lii jëf joo xam ni sell na rafet na jaadu na loolu day xam ne ni Cheikh mooy mbër rek mbiram day gën di jëm kanam waaye du gën a dellu ginnaaw day gën a jëm kanam ndax sëñ Tuubaa moo ko wax mas nay andi di teg di sàkk di andi di teg ba ak am bi sëñ bi ne ko fa yaa xisaa foxusuma ataytu ko bu kun mi na saakiree na jëlal lii te loolu aaya boobu yonent yàlla Muusaa alayhi salaatu wasalaam ci la ci la ci la ci la wàccoon foxusuma ataytu ko wa kun mi na saakiree na jëlal liñ la jox te nga bokk ci way sant yi kon sant damaa yaakaar ni